ginnaaw yow mënoon nga alak taif ci benn xef nga ne allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun kon yaay jëm yermande cheikhu tidiane don ci mom lolu motax borom téré gi ne ko wayam bu rahmatin mom moy ballukaay yermande ñu ne ko ak lan mu ne bahril haqiqati cheikhu tidiane moy geejub haqiqa haqiqa nak soko bëggee firi moy batin ndax dafa am zahir am batin lu feñ ak lu neub sharia dafa am moy ni ngay julle ni ngay woré ni ngay saraxé ni ngay ajé makka ni ngay défé mu digënté doomu adama yi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 بين الأمر هذا الشيخ عين ولاية تفجر من بحر النبوة سافيا من الأمر جنا بيننا جنا تسمك بندو هذا الشيخ شيخ تجان مي عين ولاية موي جمك ولاية تفجر من بحر النبوة سافيا قفاقه كي جيجك يننتي تنكول يننتي نكول يال من كي وقت زور بوبي تي عمفي فمانة لاج نانكو باي لان موتاك شيخ تجان نانتي جيجك يننتي جن نكول يننتي نكولي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 bi xay su ci place boo xam ne laa yasa uli wali min al awliya mënul yaatu mukk ñeel benn wali ci waliya lay an yatadaxala fi ma baynahu wa bayna rasulillah ba muy dugg rokk su diggante Cheikhu Tidiane ak yonent bi loolu wali yàlla amu ko benn wali dootu ko am moo tax na mu ne ci moom xatamal mawla ci la yàlla matalee kamaalal wilayati mooy wilaya gu mat gi kama xutimat rasan bi ruuxin wa kilmati kon mat euh, matal wilaya ñaari anam la indi na fi beneen maa ngi ko doon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 طريقة تيجان رك موفي نك من سيدا عاج مالك سواح نكو من يبدأ اليوم كشفا في تخالفهم فكشفهم سابق والسابقون تولي لول الاج مالك واح وشيخ يا صاحبي حقا مقلده لا عيب في أنه مهما يمل يملي من يبدأ اليوم كشفا في تخالفهم فكشفهم سابق والسابقون تولي الحاج مالك سينا والشيخ Seexu Tijaani yaa saahibi yoo sama xarit xaqan muqalliduhu ku ko topp nekk taalibeem laa ayba fi annahu mahma yamil yamil sikki amul ne fu Cheikh jeng foofu ngay jeng lu Cheikh wax loolu ngay gëm man yedda il yowma kashfan ginnaaw Cheikh ku wootu kashfu ne man am naa tariqa te Cheikh ginnaawam beneen tariqa du am fii taxaalufihim nga wuteeg la Cheikh wax wala lam junju fa kashfuhum kashfu Cheikh bi saabiqun moo jiitu sa kashfu gi wa saabiquuna ña tu tuli ñooñu la ñuy topp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 walakin shubbiha lahum waaye yàlla dafa jël ku niroog Isa teg place am ñu rey kooku yaakaar ne Isa lañ rey waaye Isa nga ca kaw di dund dundug malaaka yi yonent yàlla Muhammad ne day wàccaat mujjanteelu jamono mm-hmm. ma wax la nag charia yonent bi beneen charia du ñëw ginnaawam alquran beneen téere di ko sax moo tax am na ñu doon laaj ñu ne waa Isa su wàccee mujjanteelu jamono day indaale charia am boppam wala déedéet ñu ne déedéet charia yonent yàlla Muhammad lay àtte fii kay moom ba àdduna jeex alquran rek <coughs> beneen diine di ñëw gu bees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 yonent bi nee ne dara su desul woon ci àllaaxira dara su desul woon ci àllaaxira lu mooy benn fan yàlla dana guddal fan googu ba génne kenn ci ahlu bayt sama ahlu bayt mu feesal suuf si maandute ak njub comme ni suuf si feesee woon ndëng ndëng ak tooñ kooku nag mooy mahdi yu kooku la yent yàlla muhammad di junj foofu mahdi yi dana wàcc yent yàlla isaa dana wàcc ñu tombe fan la ñuy daje ñoo ngi daje ci dimashq dimashq mooy Syrie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 فياتي مؤذن المسلمين فيقيم الصلاه وهي صلاه الفجر فيصلي عيسى ماموما مقتديا بالامام المهدي. يرن تبين ان عيسى دنا واتي دمشق عند قيام الساعه الاخره دي واجه تخو ويكون نزول على المنارة البيضاء التي بشرق جامع دمشق وصفته مربوع القامة من دفا يم تخوال أسود شعر دفا نيول كرو أبيض اللون كرم دفا ويخ فإذا نزل سواتي موسى يدخل عليه اليهود والنصارى يهود النصارى يبني نيو sargali ko maanaam dugg fa fa mu dugg mooy ca jumaa ja charqiya jaami Dimashq xataa yafa baadoom raasa baadin maanaam nit ñi dañuy bëri ba am ñoo xam dañuy joggi ci bopp ni ñi ndax bëri waay fa yaati muazinul muslimina kay noddu jóg noddu ñu ne ko ban julli mu ne wahiya salaatul fajri julli fajar lay tombeel Isaa day wàcc ci mbaggi malaaka ay malaaka ñoo koy lëng jëlee ko ci asamaan ndax Isaa bokk na ci ñeenti yonent yi dund ci kaw jamono yonent yàlla Idris Isaa Ilias Xadir ñeenti ñi ñoo ngi dund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 safara nga jëm waaw laa yazdaadu al amru illa shiddatan wala dunya illa idbaaran wala al axiratu illa iqbaalan wala annaasu illa shuhan wala wala al mahdiyu illa isa bnu mariama wala taqumu saatu illa ala shiraari nnaasi wala al mahdiyu illa isa bnu mariama yonent bi nee ne laa yazdaadu al amru illa shiddatan mbiru adduna day gën di jafe laa yazdaadu al amru illa shiddatan wala dunya adduna du yokk illa idbaaran lu mooy di gën di jeex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 Thank you.